mbokk yi internet di Sénégal 7 ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal euh, fii ci Sénégal 7 ci beneen euh, numéro ci seen émission entretien avec tey ñu am mbégte di dalal euh, koo xam ni bokk na ci mouvement collectif Frapp France Dégage di bokk ci waa Guy Marius Sagna di wuyoo ci turu Daouda Gueye ñoo ngi lay nuyu dawda Abdou Khadre maa ngi lay fay. ñoo ngi lay dalal ci Sénégal 7. di nuyu ñi nga xamante ñëpp ñoom ñoo ñuy euh, topp di ñu déglu. Mm-hmm. Euh, ci lënd gi maanaam internet ak ci mbaalu jokkoo yi maanaam réseaux sociaux yi. Mm-hmm. Euh, tey ñuy waxtaanee actualité actualité politique mm-hmm. Philippe lalio di ambassadeur bu France fii ci Sénégal def benn sorti ci grand jury bu RFM di wax que ni TER bi di train express régional. du mën a daw fii ak avril alors que état du Sénégal annoncé woon na que nii dina daw fii ak avril loolu euh, est-ce que foogoo ni euh, France day jël contribuer bu état bu Sénégal. xam nga Abdou Khadre wolof day faral di léebu naan bukki bu yabee mbaxambaane rek ci doxin wala doxin woowu nga xamante ni lii di càmmuk Sénégal maanaam état Sénégal noonu lay doxalee ba ñu jotee lii ñu tuddee suñu ay ak jonn maanaam indépendance te ñëpp xam ne ñun moomaguñ suñu bopp loolu moom moo tax. Farayangas maanaam ambassadeur yi nga xam ñoo fi euh, teewal réewum France am benn sañ-sañ boo xamante ni moo leen di may ñi dem ci rajo yeeg télé Sénégal yi di wax ci yoo xamante ni dafa jëm ci loo xamante ni askanu Sénégal la soxal te bu dee ne Sénégal wax dëgg yàlla dafa nekk réew moo xamante ni moom moom moom boppam am ak jonnam yaakaar naa ne ab doxandeem du fi ñëw li ñu naan gan du yeewu béy waaye loolu lépp li ko waral moom mooy gis nga tey ñi ngi tey Guy Marius Sagna euh, xam naa loolu dinañ ci dellusiwaat euh, tëj ko te ñun li ñuy jàpp te mën koo layal mooy ni kii di Guy Marius fee mu nekk ni di coobare Macky Sall waaye dafa nekk loo xamante ni lu ko euh, euh, France gala mhm. imposé moom moo tax mu téye fële ni Guy Marius mhm. ndaxte ñun waa FRAPP France dégage amaana jàpp nañ ne ñun dañoo jéggi rëdd bi nga xamante ni moom la way mbéyféer maanaam colonisateur bi mhm. nga xam moom mooy France rëddoon ne fii kat bu fi kenn jéggi mooy kat di ŋàññi France ak di dal ci kaw France ak di wane France ni nga xamante ni noonu la ñëwee boof ci li nga xamante suñu moomeel la ba nga xamante ni ñun ñu continuer di dund ci ndóol ak wañ see maanaam misère bu méttee méttee métti loolu nag muy frappe France dégage bi surtout te euh, dégg na euh, balaa may ñëw ci sa laaj euh, farayangas bi maanaam di ambassadeur bi taxaw naan ah France France frappe France dégage loolu amul maanaa. maanaam beneen question la xam naa den ci ñëw waaye ñi koy xamal ne rek li nga xamante ni ñun moom lañ wax moom la kii di càmmuk Sénégal maanaam état Sénégal ñëw wax tey. Mhm. te kii du Omar Youm euh, muy jëwlin ji yor dem beeg dëkk bi ak jëfekaay yi maanaam infrastructure yi wax léegi léegi xam naa gisagoo loolu benn euh, kii bu mu bind fële ca da euh, xëtam wa nekk ca Facebook. Mhm. di ŋàññi wax ji nga xamante ni kàddu yi nga xamante ni kii di Faransu France yëkkati na ko di Lalio. nekkat dafay dugg ci lu yoonam nekk ndax te loolu la loo xamante ni mbirum waa Sénégal la kon nag ñi nga xamante ni ñoom la Sénégal jox seen kàddu ñoom ñoo ci war a wax muy càmm geeg caytu man maanaam état bi ak euh, gouvernement bi ñun loolu lañ yàgg di wax France dégage bu ñu nee France dégage nag ñun dañoo jàpp ne ngir mu mën a am suñu jonn mën a doxal suñu réew ni ñu ko war a bëgg a doxalee ah li nga xamante ni moom la ñoom la jor doon xeex li nga xamante ni moom la ñoom jëri jor Ndella Fall doon xeex li nga xam moom la maam borom Touba Seydi Hadji ak ñeneen ak ñeneen mag ñi nga xamante ni dañ doon bañ nooteel doon xeex ñun loolu la ñuy wéyal ba tey parce que ñun dañoo jàpp ne nootal googu noonu fi loolu moom tax nag ah bu fekkente ni tey kii di euh, président Macky Sall ak euh, nguuram ah, ñëw nañ fekk si ci loolu di yamale waa France ñun dañuy wax ni kat ah kon ñoom nit ñi yàgg a jàpp di ñu tëcc di ñu fodom ah feeñu bu ñu bëgg a lootaabe maanaam manifestation bu ñu bëgg a ñoom ñu neenal ko ñoom wane nañ ne tey ñoom nekk ñu woon ci dëgg ñun ñoo nekk ci dëgg ndaxte kat France dafa war a génn ci mbiri Sénégal ngir Sénégal moom boppam Sénégal euh, am ak jonnam mën a doxal li nga xamante ni mooy tax dund askan wi gën a ñoŋ. nguuru Sénégal ci boppam wane boppam wax que ni waa France nañu euh, xool ci seen bopp ñu régler seen mbir te bàyyi mbiru Sénégal. waaw loolu mën nga jàpp ni rek dina yàgg. xam nga déedéet déedéet du yàgg ndaxte. weñ gaa nga bañee ca mbànjaxaan ga boo déggee loolu olof di ko wax maanaam mbir mi du ci lii rek ci anam yépp tey jii tey da ngay xool kan moo ibbil buntu Sénégal euh, euh, euh, kii yaxantukatu France yi maanaam commerçant France yi ñëw ibbi fii ni ay Auchan ay Carrefour ak yooyu noonu te loolu ñun taxaw nañ ñi ko Auchan dégage Carrefour dégage parce que ñun dañoo jàpp ne yooyu mel ne Auchan ay kii dafay rey li nga xamante ni moom mooy yaxantu gi fii ci biir réew maanaam commerce bi ba ñi nga xamante ni ay doomi Sénégal lañ doon liggéey nga xamante ni ñun liñ gëm mooy doomi réew mooy tabax réew ñooñu noonu dañuy mujj a laf seen ay table te loolu ci lañ ci lañ ci la ñu nekk ci naka noonu lañ taxawee ne lii nga xamante suñu koppar la muy CFA bii nii France dégage ndaxte FRAPP ñu ngi ko sos euh, mille neuf deux mille deux mille dix-sept bii nii ñetti at ci lay toll waaye France dégage bi benn campagne la woon rek boo xamante ni ci biir euh, yëngu yi France doon yëngu la muy pour une souveraineté monétaire France dégage maanaam bu ñu bëggee am suñu càng maanaam suñu souveraineté ci wàllu koppar mën a suñu koppar di ko doxalee ni mu ñu neexee France da cee war a génn te bu ñu naan France da cee war a génn benn bi mooy li France am ndaw lu ko toowal ci conseil d'administration suñu banque centrale mm-hmm. beneen bi itam xaalis bi ñuy jëfandikoo ña ngi koy defaree fële ci France ak suñu euh, cinquante pour cent euh, al euh, réserve yi nga xamante ni dañ koy jox France ñu ne France na ci génn ngir ñun. ñu mën a garder suñu CFA mu nekk xaalisu Afrique ak tur bu ñu ko mënti jox ñu jox ko ko loolu yaakaar naa ne euh, bu fekkee loolu moom moo amul benn maanaa moom moomu di farangance maanaam moom moo xamul fu muy taxaw xamul fu muy nekk wala boobu mu xam ko ba pare li ñuy wax amaana ñoom neexu leen arrangé wu leen loolu moom moo tax mu taxaw di ko di mais loolu lépp bu ko amee ñëw ba suñu bi mu réew foog nga ne fële ci France di nga gis ambassadeur France fële ci France génn dem ci rajo yi France yi wala télé France yi di wax ci ñi nga xamante ni dañuy manifester ñu tuddee leen ay gilets rouges gilets jaunes te ñu bën te ñu fokk seen bët yi di leen dóor nga yaakaar ne ambassadeur Sénégal am na sañ-sañu def loolu nga yaakaar ni France dina nangu Sénégal am juróomi soldaaram rek am ab néeg foofu noonu France te boo demee fii Wakam yaa ngi fekk base militaire française mu nekk une d'occupation coloniale muy wane ne kat ñun li nga xamante ni moom lañ jàpp ne am suñu indépendance te 4 avril bu ay nax la moom moo tax ñun FRAPP at mu jot tamit le 4 bu ñuy fête indépendance ñun ñu fête défaite de l' indépendance parce que jàpp nañ ni ñun amaguñu indépendance amaguñ ko ci wàllu koom amaguñ ko ci wàllu suñu mbeeraay maanaam suñu territoire ndax euh, soo baree maanaam soldatu France yi euh, fi fi am ab dal amuñu ko ci wàllu koom ndaxte boo xoolee koomu Sénégal euh, li ci gën a am doole lépp lépp lépp lépp France da cee teg loxo tey muy ci côté tali yi ngay daw muy. Euh, autoroute euh, à bi nii nga xool ci wàllu station service yi nga xool ci wàllu service yi lu mel ni orange orange ak euh, yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ba mu àgg léegi tey ci njënd meeg njaay mi mu demee ay Auchan ak ay kii loolu nag bu amee ci réew wax dëgg yàlla moo tax ñu naan kat ah réew mi kat am na kemoog màgg maanaam taux de croissance waaye taux de croissance boobu noonu nit ñi koy ni France dañ dëkk wala Turquie wala feneen bu ko defee loolu lépp dañ koy ko defee ñun ñuy yëg ci suñu dundin duñ ko yëg ci euh, euh, suñu fu ñuy fajoo duñ yëg ci njàng njàng mi duñ ko yëg ci tamit ci njëg yi ak leneen ak leneen loolu nag moo yàgg a tax ñun ñu taxaw ne kat France dégage te biir France dégage boobu ma bëgg a leeral ñun amuñu lenn loo xamante ni moo dox suñu diggante ak Euh, ñi dëkk France saa France yi. maanaam askanu France ndaxte dañoo jàpp ne ñi nga xamante ñoom ñoo ñëw fii di ñu noot muy lijjanti yi ak euh, euh, la France institutionnelle comme on l'appelle maanaam càmmuk France gouvernement bi ñooñu ñooy noot français yi ñooñu ñoo tax gilets jaunes yi ñoom di manifester. ñooñu ñoo tax ñun tam ñuy manifester ndaxte kat mooy lan lëkkaloolu góor bu am ci capitalisme bi ak état bi. di France muy nekk un état colonialiste wax dëgg yàlla moom moo tax ñu ñëw fii nii di ñu noot ñoom ñooy noot seen askan ñooy noot yeneen askan moom moo tax ñun dañoo nekk dans une perspective internationaliste li ñuy xeex yamul rek fii ci Sénégal ndaxte bu ñu sañoon askan yëpp dinañ am péexte maanaam liberté askan yëpp seen dund dina ñoŋ te askan yooyu li tere seen dund ñoŋ ñu tee am ñoom péexte am seen jonn seen indépendance mhm. mooy ab complot boo xamante ni ñi nga xamante ni ñoo jiite nguur yi rawatina nguurug France ànd ak ñi nga xam ne ñoo ay lijjanti ay entreprise muy capitaliste mhm. ñu ànd di noot askan yi xam naa ci train express régional boobu la ñuy desandi mm-hmm. euh, ndax état bu yàgg na wax que ni Euh, terre bi dina daw dina daw gannaaw euh, ay rapports yu bëri tey est-ce que jàpp ngeen ni yéen waa FRAPP France dégage nguuru Sénégal li mu wax que ni euh, terre bi dina daw fii ak. gis nga terre bi ndax yaakaar ngeen nii dina dina dem. gis nga teer bi nguur gi moom ay waxam wax dëgg yàlla amatul lu ñu ciy gëm quoi nit ñi dañuy xaar ba gis ndaxte wax dëgg yàlla tàmmal nañ nit ñi di wax muy dañ tàmmal nañ nit ñi ay loo xamante ni ma nga ci gannaaw dëgg te du yàgg dara dëgg yàlla mu feeñ ba nit ñi min nañ ko lool ci ñoom ba lu ñu waxati sax nit ñi wax dëgg yàlla Euh, da ngay faral di wax ne li leen metti sax du fen yi neen di fen waaye li ñu leen mënatul a gëm ndaxte boo amee yow ñoo xamante ni ñoom nga jox sa kàddu ñu yoral la sa réew mu dem a dem a dem dem ba mënatoo leen gëm lu ñuy wax yow mënoo leen gëm même bu leen bëggee gëm mënoo leen gëm yaakaar naa ne tuskare mënut a euh, weesu loolu noonu mm-hmm. leneen li moom mooy nga teer bi nii njombe lu rëy rëy mooy teer bi nii ndaxte loolu yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko la ñu ñu waxoon ne moom lañ dugal xaalis ci bi bés bu nekk ñuy yokk xanaa li nga xamante ne moom la ñu wax ñu ngi doon wax xanaa euh, sept cent euh, sept cent milliards mujj bi ñu naan mille deux cent milliards léegi ñu naan sax deux mille milliards loolu ci wàllu li nga xamante ni moom la ñu coûté la. Mm-hmm. beneen wàll gi mooy délai yi ñu waxoon heure bu ñu nee ñu ne joxal ñu àpp nañu TER bi dina daw yaakaar naa ne TER bi li ñuy gis moom mooy ci ay peeñ maanaam image mu takk mu takk ripp ak poussière. ba nga xamante ni dañu yaakaar ne sax lii ay téeméeri at téeméeri at mi ngi fi loolu moom moo tax ñu ne kat gis nga terre bii ni mu nekk ci nguuru Macky sàll gi wala bu dee bu fi jógee keneen ki koy wuutu mais terre bii nii il faut que ñu càmbar ko il faut que ñu saytu ko jéem a xool ndax lan ci waxoon moom lañ ci dugal moom lañ ci dugal te ca njëlbeen ka mooy li ma la wax ne mbir yi ca euh, tàmbali ga lay dooree terre bii nii mooy li sàll Sall def rek Macky Sall moom. préfet France la loolu moom dafa leer c'est un de la France ndaxte moom ak Alassane Ouattara parce que fii la woon dafa wanniwul ba léegi démb Ouattara ak euh, démb sengoor ak euh, Houphouët-Boigny la woon ak euh, ñeneen ñu mel noonu ay Bongo ak ñooñ tey Euh, euh, Ouattara mooy Houphouët-Boigny Macky Sall moom mooy Senghor looloo fi nekk loolooy dëgg loolooy dëgg ko parce que tamit il faut que benn instant réew bu ñu ko bëggee doxal ñu bàyyi maslaa yi loolu moom moo tax ba tey jii tey ñoom lépp loo xamante ni France bëgg na kaa doxal ci euh, kembaru Afrique maanaam continent Afrique ci ñoom la koy jaare muy ci éco bi nga xamante ni dañu bëggoon ñëw sàcc di nga xamante ni moom moo nekkoon mébatu askan wi soppar ni ko ba nga xamante ni dañuy wéyal li ñu doon doxal ci CFA bi mm-hmm. ci fan la ko jaarale ci Ouattara ndax dégg nga Macky Sall mu wax ci du ci wax parce que ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko déggoo Ouattara moomu noonu en 1994 93 bi nga xamante ni Abdou Diouf bañoon na lii de dévaluation bi moom lañ yebal boobu premier ministre Houphouët la moom moo ñëw fii nii fexe ba convaincre Abdou Diouf pour mu nangu loolu noonu pour di la wax ne rek ne la dañoo nekk ci benn fraternité ma ne fraternité xaayaan ku dégg séeréer xam na ñu muy demee moom moo tax bi nga xamante ni euh, entreprise française bële na de. Euh, doon na waaj a euh, galfaañ maanaam au bord du gouffre am benn école bu fa nekk muy Sénam nga xamante li taxoon nu sos ko moom mooy euh, jàppal tànk lii di lijjanti maanaam entreprise français yi moom ci boppam ñoom ci boppam ñoom ñoo euh, lijjanti mbir yi ba Macky Sall ñëw jël alalu askan wi dugal ko foofu noonu boo fàttalikoo ci guddi ga seenaam googu noonu organiser nañ ab euh, fête ci guddi gi Youssou Ndour moo fa nekkoon di way muy loo xamante ni mooy li ma wax rek lobby affairiste ak lobby politique yi. Hmm. ñoom ñooy wéy di continuer n'est-ce pas donc di wéy li nga xam moom mooy colonisation ak néocolonisation ak impérialisme ba tax ñu noot askan yi. ba pare nag askan wi bu ñu génnee di ñaxtu ñu jël alkaati yi boole ko askan wi ñu gazé leen nii ñu dóor leen ba looloo tax tey ñu jàpp ne kat kii di Guy Marius Sagna moom dafa nekk koo xam dafa fës ci li nga xamante ni moom la Macron jàngat ne sentiment anti français la tama la wax ne ñun amuñu sentiment anti français parce que suñu jafe-jafe jëmul ñun ak waa euh, ña dëkk France askanu France comme ni ma ko waxee ña leen di noot ñoo ñuy noot ñi nga xamante ni moom moo tax ñu naan France dégage mooy la France institutionnelle mooy état français nga xam ne c'est net état impérialiste ak ñi nga xamante ni mooy multinationale française yi ak euh, yu demee ci yeneen dëkk yu mel ne ay Turquie nga xamante ni c'est le capitalisme impérialiste xam naa kon teer bi dañuy xool rek ba xam euh, di xaarandi ba xam li état Sénégal wax que ni dina daw fii ak avril dañ koy xaarandi waaye ci biir loolu seen euh, benn naataango di euh, Guy Marius Sagna nekk patriote nekk koo xam ni day xeex ngir hausse du prix de l'électricité ñu jàpp ko est-ce que jàpp leen ni ndënkaañ googu ñu ko def ci prison bi jàpp leen ni euh, loxo euh, France daf ci nekk. mais loolu wax nañ ko yaakaar naa am nañ fi ab janoo ak taskatu xibaar yi ñun waa FRAPP wax nañ ko te loolu yàgg nañ kaa wax ndaxte ci fàttali Guy Marius Sagna biiru euh, njëkk bi yoon ñu koy teg loxo yaakaar naa ne li ci jiitu tey jii le 24 bii yi di ñëw kii di Bentaleb Sow di sama camarade nekk FRAPP France Dégage tam ne coordonnateur noo lank mm-hmm. war na taxawaat ak Kémi Séba. Mm-hmm. ci wàllu. billet kayitu junni boobu nga xamante ni moom la ñu taaloon fële ne ci place de l'Obélisque te bis boobu ñun ñëpp ñu ngi taxaw ndaxte kat di taxoon ñu def loolu mooy symboliquement wane ni CFA bi ni muy doxee ni dañ ko war a taal defar tëgg suñu xaalis bopp pour mën a moom suñu bopp waaye li tax Macky Sall euh, dàq Kémi Seba génnee ko euh, réew mi te jour boobu ñun ñu dem manifester ci aéroport bañ jàpp ñu tëj ñu fële ne ci gendarmerie aéroport ne Kémi Seba du génn parce que doomu Afrique la doomu Afrique du ko dàqee Afrique mm-hmm. loolu loolu waa France ñoo nekkoon ci ginnaaw waa France ñoom ñoo nekkoon ci ginnaaw Côte d'Ivoire bu ñu fa dàqee Kémi Séba waa France ñoo nekk ci ginnaaw Burkina Faso même chose ndaxte li ma lay wax rek suñu réew suñu réew yi li nga xamante ni moom mooy suñu tax ñu tuskare moom mooy ñi nga xam ñoom ñoo ñuy jiite ay xusma ñàpp la ñoo xamante ni. Euh, ci waayu France la ñuy dem moom ñu seen bopp ay préfet ay préfet France lañ. loolu nag moom moo tax kii di Guy Marius Sagna ah ñoom jàpp nañ ne kat moom moo gën a fës ci xeex bi te kat Guy Marius Sagna ma leen di wax ni mosul jiite frappe. FRAPP coordonnateur am délégué général la am léegi Ousmane Wade la ki ci topp mooy Aliou Badara Mboup Guy Marius Sagna moom mooy secrétaire administratif bi maanaam. bu ñuy bu ñuy bu ñuy réunion bu ñuy réunion moom moom mooy euh, jël euh, PV yeeg yooyu noonu donc nekkul kilifa ak FRAPP parce que FRAPP amul kilifa parce que FRAPP li nga xamante ni moom moo ñu jiite moom mooy idée idée bi moom lan mooy idée anti impérialiste moom moo tax ñu tuddee ko FRAPP front pour une révolution anti impérialiste populaire et panafricaine noonu la euh, kuréel kuréel gi tudd waaye. ba ñu ko jàppee lan la ñu waxoon ne kat ah, Guy Marius Sagna kat dafa def alerte euh, fausse alerte au terrorisme te lañ ko jàppee woon teguñu ko fenn ndaxte janoog taskatu xibaar ba ñu amaloon ba yëkkati ay kàddu ne France dafay napp nguuru Sénégal maanaam chantage ngir mën a jot suñu pétrole bi kat dafa ñëw ne Macky Sall boo ñu joxul ci pétrole bi dinañ ibbi digg wi dox diggante Sénégal ak Mali maanaam frontière bi rëttalkat yi maanaam terroriste ya nekk Mali ñëw def ay cong fii ci Sénégal te loolu ñun waxuñu ko ki ko wax moom mooy euh, député Khoureychi signaas jàmbur boobu noonu moo dem fële ca ab meeting fële ca kaas nag ca kaw Kaolack wax lii ñu wax ni ginnaaw loolu tamit euh, ministre francais bi fi ñëwoon wax ne carrément ne kat Sénégal kat ah yi ñu ngi fi ñu ngi fi. maanaam ay réseau dormant ñi ngi fii ni bi ñu boolee loolu yëpp ñun li ñu ci jàngat mooy lan kat ah moom dañoo ñëw Euh, di jëfandikoo euh, mbirum terrorisme bi ngir di napp Macky Sall ne ko kat bu fekkante ne joxoo ñu ci pétrole bi te looloo tax Total ñun jort nañ ne Total dugg ci suñu suñ suñu pétrole bi tibb ci lu bëree baree bari pour wax la rek ni loolu moom moo tax ñu jël Macky euh, kii di Guy Marius Sagna denc ko denc ko ci denc boo xamante ni dañoo mujj sax waaye di ñoom ñu ko denc ndaxte wax dëgg yàlla ci mujjantal ga amuñu dara luñ koy toppee bi ñu ko bàyyee itam li tax ñu tegaat ko loxo bi yoon moom mooy li Macron dajale bu yàggul dara boo leen xoolee di ngeen ko gis ay euh, euh, njiitu réew Afrique Macky Sall ci la bokk di leen wax ne dañoo war a taxaw xeex li nga xamante ni sentiment anti français la mm-hmm. amaana loolu yëpp boo ko boolee moom moo tax ñu jël Guy Marius Sagna denc ko fa leen waaye gis nañ ne ñoom li ñuy xamul moom mooy ne ah Guy Marius Sagna donte sax ñoom jàpp nañ moo jiite eh, eh, mbir mi Euh, Guy Marius Sagna euh, doomu gerte la doomu gerte nag boo ko suulee yaakaar ne tax nga taqali ko moom dafay bi dafay sax dafay bi ba mujj doon ab tool te loolu moom moo leen dal ndaxte foo tool nit ñaa ngi naan frappe France dégage suñu discours sax accroche tey ji tey euh, ay bés bii di ñëw waa frappe Kolda amal nañ ay yëngu yu am solo FRAPP FRAPP Tivaouane ña nga fële na le di yëngu ci mbirum ICS ak toobeen ak ni ñuy nangoo suufu suufu suufu jàmbur yi ah FRAPP euh, euh, banlieue FRAPP Thiès donc FRAPP mi ngi euh, wër réew mi ndaxte kat wax dëgg yàlla dafa nekkoon loo xamante mi ngi fi woon nit ñi di ko méttilu cri bi jóg FRAPP France dégage fédéré ñëpp te wax dëgg yàlla bu yàggul dara dinañ gis ne ah te mel na nguur gi fekk si nañ ñu ci ndaxte tey ñu ngi taxaw naan Euh, euh, ambassadeur France na dégagé ci suñu ay affaire te ñun waxuñu woon dara lu dul loolu France dégage mm-hmm. na génn suñu réew mm-hmm. ci génne loxoom suñu réew du yàq nag bu fekkante ne ci njënd ak jaay mën nañ jëflante ñoom nañ jëflante ak ñoom mais mën nag jëflante nawle boo xamante ni wax dëgg yàlla li koy lal du impérialisme li koy lal du jaay doole li koy lal du lenn lu dul wax dëgg yàlla ñaari réew yoo xam ne ku ci nekk am nga sa jàng maanaam sa souveraineté ñu jëflante ni ñu mën a jëflante ak yeneen réew yi parce que àdduna bi toll na foo xamante ni ak voilà ak mondialisation bi yaakaar naa ne meenum réew mënta t meenum réew mënta tëju te protectionnisme am na ay limitam waaye nag nañu jiital ñi nga xamante ni ñoom ñooy lijjanti nekk ci biir réew mi maanaam PME yi tey ji tey ñi ngi à 64 pour cent de taux de euh, décès des des des des de des PME entreprise Sénégal yi ñu ngi dee bu yàggul dara la CDE dàq Euh, ñaar ñaar téeméeri nit ndax lan ndax te kat amul ay marché te marché yi ku koy joxe nguur gi kan la jox ay entreprise française entreprise turque ah tey jii tey Erdogan buy ñëw fii Sénégal buuru Maroc buy ñëw fii Sénégal dañuy ànd ak ay chef d' ñëw wutal leen ay marché waaw Macky Sall lu tax du def loolu bu leen yóbbul sax wutal leen ay marché mu dooleel leen créer ay champion euh, euh, ay champion d' industrie ay champion bu ko defee ñoom ñu defar ay ba mu taxaw. bu ko defee ñu jël ay doomu Sénégal ñu fiy liggéey la fay nekk njureef maanaam ay résultat ci xaalis du dem fenn ci Sénégal lay toog bu ko defee wax dëgg yàlla. réew mi dana gën a ñoŋ ci wàllu dundinu askan bi ndaxte ñun encore une fois li ñu gëm moom mooy doomi réew mooy tabax réew. Euh, ci biir coopération boobu laata ñuy eggal ci Guy Marius Sagna euh, gis nañ gouvernement bu euh, Canada jox Sénégal cinq cent milliards est-ce que nekkul ni lool rek dañ koy def ngir courtiser Sénégal ak pétrole beeg gaz bi xeeñ fi biir réew mi. xam nga réew amul xarit réew ay intérêt rek la am. Mm-hmm. moom moo tax waaye nag ñoom ñoom ñoo doxalee noonu pour sëlam askan wi dañ naan leen ah diwkat ñëw na indil nañu lii mel na yow ku ñuy ñëw di la labat si di la doxaan si mm-hmm. ah. ngay mbaraan parce que ku ñëw nga ne ko ay ca parce que ñoom noonu lañ fi nekkee ku ñëw nga ne ko ay ca moom kay ñi ñu dul sëyal moom ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ci kër gi moom mooy les nationaux les entreprises nationales. Mhm. léegi yow boo ñëwee la ngay joxe yow la ngay joxe doo ko wax li ngay wax moom mooy liñ lay jox te boo méngalee li ñu lay jox ak la ngay joxe yow. ci alalu askan wi ci moomeelu askan wi mhm. ci lu jëm ci wàllu euh, ressource askan wi ressource naturelle wala ressource financière wala ressource économique wala ressource halieutique yow doo ko wax euh, nit ñi bu ko defee mu nekk ay ay naxe waaye jamono toll na foo xamante ni mhm. fii lu fi desee xam rek dafa yàggul moo tax fii kenn mënatu fee nëbb dara ndaxte wax dëgg yàlla weesu nañ jamono ji nga xamante ni RTS moo fi nekk ak lu Soleil mhm. tey ji tey Euh, kër yi saabal yi caabal yi bëri na maanaam média yi bëri na muy ci lënd gi di internet muy ci mbaali jokkoo yi di ci euh, réseaux sociaux yi mm. ba ci li nga xamante mooy tele yi ak rajo yi ba nga xamante ni wax dëgg yàlla àdduna bi ibbeeku na te kenn mënatul a nax kenn mm. ndax jàppoo leen ni euh, sénégalais yi dañ leen a seetaan ci xeex bi ngeen di xeex ci wàllum wàcce wàññi prix électricité bi mm. ak denc bi nga xam ne denc ko seen mbokk moomu di Guy Marius Sagna déedéet ndaxte boo xoolee feeñu yi nga xamante ni la ñuy lootaabe maanaam manifestation yi nga lañu organiser. Mhm. Sénégalais yi dañuy génn ñëw. waaye nag àdduna noonu la mën a doxe mos a doxee mosoo gis réew moo xamante ni dañoo jóg di xeex lépp ñëpp génnandoo mhm. ñëw ndaxte am na ñoo xamante ni na ñi ngi féete ci wàllu nguur gi ñoom lii di yokk njëgu mbëj gi maanaam électricité bi laal na leen. Mm-hmm. waaye ah ñoom kat am na peut bon bonbon bu ñu leen di jox ñi koy màcc ba yaakaar na ne bu ñu ŋaangee sax ne noo lànk bonbon bi wadd. Mm-hmm. moom moo tax ñooy tamit loolu àdduna noon lay doxee am na ñeneen ñoo xamante ni wax dëgg yàlla réew mi galfaañ maanaam nekk au bord du gouffre ndax yorinu bon moo xam moo tàbbal askan wi ci ndool woo xamante ni jékki nañ sax ndool léegi ñu ngi ci wàñse wu métti métti maanaam lii di euh, misère ba tax ni kër yi bëri na ñoo xamante ni mm-hmm. toggatuñ añ ak reer ak ndékki déedéet dañuy gobar jaasi maanaam togg añ bu ci reer ba nga xamante ni boroom kër yi ñu ci bëri bu ñu jógee li ñu tal moom mooy wuti li ñu jox seen njaboot xam nga ñooñu boo leen bëggee woo ci manifester wax dëgg yàlla booy xool li nga xamante ni moom lañ doon def di séddale ay flyers tax na ñu dem wax ak nit ñi mm-hmm. ñu ci bëri dañ naan ñoom dañoo am kersa ndax li tax ñoom du ñëw ci manifestation yi ndaxte li ñuy xeex ñoom si boppam daf leen a laal muy yokk njëgu mbëj gi ak yokk njëgu yeneen njëg yi ndaxte bu yàggu lañ ne bu dee nga diwlin bi def ñaar fukki kaabal maanaam vingt libre mm-hmm. litre yokk nañ ko ak simon beeg yu demee noonu ah ñoom kat njaboot moom moo leen jiital ba tax na duñ mën a bàyyi seen di ay ay liggéey di ñëw. Mm-hmm. loolu itam luñ mën a nangu la. Mm-hmm. pour wax la lan pour wax la ne la li nga xamante ni moom mooy naqar wi askan wi fësal ci manifester yi ñuy def. ànd wane seen ñàkk euh, ànd ci yokk gi nga xamante ni dañ ko bokk bëgg a yokk njëgu euh, mbëj gi mm-hmm. a ah, loolu noonu bu ko natt rek ci ña fay toog am na ñu toog seen kër ba ci yow mi ak keneen ñëpp ko yëkk neexul kenn ndaxte nit moom wax dëgg yàlla jamono ji metti na méttit boo xamante ni Sénégal métti na te méttit bi yëpp yorin wu bon boo xamante ni ab pàccoo goo xamante moom la ñuy pàccoo ask alalu askan wi tey tëral ay kuréel yu mel ni ay conseil économique social et environnemental et au conseil des collectivités territoriales ay ministre conseil ay chargé de mission ak yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni hmm. amalul askan wi benn njëriñ kat li am moom mooy toog jàpp Sénégal jàppee ko ñi nga xam ñoom ñoo ànd ak ñoom ci politique ku nekk ñu daggal la ci gâteau bi bu ko defee askan wi moom wax dëgg yàlla continuer ma ci ay baaraamam loolu noonu moom moo tàbbal euh, réew mi ci lii wàñse bi ñu nekk man misère bi mm-hmm. ak jafe-jafe yi ñu nekk loolu nag ñëpp la laal ku mm-hmm. génn ak ku génnul mm-hmm. te ñu génnul tamit ñu ci bëri seen lay kenn mënu koo dàq bu ñu xëyee ki nga xam ne bu xëyee du bàyyi dara këram munu ko faa bàyyi di dem ci ay manifestation da ciy ànd li koy wane moom mooy bu ñuy dox di dem dañuy romb nit ñi ñu nekk ci marché yi dañuy bàyyi li ñuy def ñëw taxaw tàccu ah, ñenn ñi di métti lu tax mënuñoo ànd ak ñun waaye loolu dañ koy comprendre léegi nag ah kii di nguur gi rawatina Macky sàll moom ci boppam moom moo war a nite te xam ne kat ah nit. nag bu fekkee yow bi nga soxlaa baatam da ngaa génnoon dem doga dagaan ko. Mhm. mu wax la nga dégg. Mhm. moom itam bu amee lu ko mett ci ni ngay doxalee. war nga mhm. ko mën may nopp. te boo ko mayee nopp ba pare déglu ko mu indi ay njaañ see maanaam ay argument wax na lii ak lii ak lii kan moom moo tax te loolu ñun def nañ ko muy mémorandum bi nga xam ne siiwal nañ ko. Euh, euh, démb. tënk ci muy ak ngara ngara ab ngara maanaam document boo xam ci la ñu tënk. li nga xamante ni mooy lay yi nga xam ñun moom la teg. jëm ci layal ne kat Senelec dañuy sàcc askan wi te ni nga ko jaaree ci ay tont maanaam facture yoo xamante ni. Mm-hmm. dañ koo yokk tey itam wax dëgg yàlla kii di conseil de régulation du secteur de l'énergie dafa complot ak Senelec wax dëgg yàlla euh, ba nga xamante ni moom mi nga xam dafa waroon taxawal askan wi mu ànd ak Senelec nag nangu yokk gi ni yokk gi tegawul fenn loolu lépp wane ni ko na Macky Sall dégg loolu delloo si xelam mm-hmm. wax dëgg yàlla bu fekkante ne dogal bi ci moom la jógee parce que ñun tamit dañu njort ni kat ñun suñu réew ñi comme ni ma ko moomuñu seen bopp les institutions de Bretton Woods ñu ngi fii nii ay banque mondiale ay ah, for naa ci weeru euh, for nañ ci weeru weewu béy sax ne waa banque mondiale ci boppam ñoo ko ga boobu yokk ñoo ko imposé ndaxte kat dafa am xaalis bu ñu ko war a lebal ne ko pour xaalis boobu dugg faawu nga yokk njëgu mbëj gi te loolu du fi lu bees muy ajustement structurel yoo xamante ni maa ngi fàttali ko Abdou Diouf ay jamonoom bi ñu génnee élection 88 di dëkk bi tàq fu nekk Abdou Diouf ci boppam bi ñu dawalee tuuti moom moo wax en 2005 bi mu jógee ci nguur gi benn émission bu mu sekk ak Philippe Santani fële ca euh, euh, RFI tam tudd Livre d'or mhm. après 1988 kuréel yooyu di banque mondiale ak FMI ak yenn réew yi am doole ñoom ñoo ñëw ne ko kat yow kat euh, li nga xamante ni moom lañ la digaloon nga def ko mu yokk njëg yi da nga cee dem ba ëppal wàññiwaatal njëg yi pour war na ne kat ñun moom ñu suñu bopp ni nga xam moom la ñuy doxalee mm-hmm. suñu njëg yeeg lépp lépp lépp loo xamante ne lu ñuy gàlla loxo France génn ci loxo FMI génn ci loxo banque mondial génn ci te wax mm-hmm. dëgg yàlla ba ñuy ñëw di dagaan suñu ay kàddu loolu la ñu waxoon Mhm. Euh, toujours ci euh, combat bi ngeen di mëne yenn waa FRAPP France dégage euh, ndax tey jii démb dégg nañ leen ngeen annoncé benn plainte au cours CEDEAO mhm. tey jii mën nga ñu wax fan ngeen toll ci boobu les plainte waaw plainte bi jigi ci suñuy avocat ñu ngi ci liggéey mhm. bu yembee rek ñoom wax dëgg yàlla danañ dem ba cour de la CEDEAO déposé foofu noonu plainte bi ndaxte wax dëgg yàlla ah, ñun dañuy yoonal xeex bi dañuy yoonal waaye itam yoonal moom da nga koy sëkk koo xamante ni li muy def ci yoon la ko teg. Mhm. bu paasee foofu noonu tamit euh, bu jeexee rek jeex na lu mu laaj lu mu jar dinañ ko def ngir Guy Marius Sagna génn fee nekk ndax tey wax dëgg yàlla tey jii tey euh, lii di càmmug Sénégal état bi war naa rus. Mhm. ndaxte li Guy Marius Sagna doon xeex li nga xam waa FRAPP France Dégage moom la ñuy xeex. li nga xam moom la activiste yi di xeex mooy fexe ba nga xamante ni ah dinañ wan ñi nga xamante ku mel ne Emmanuel Macron ne ko mhm. kat Macky Sall. lii nga ko bëgg a defloo mu bañ ko def ñun ñoo ci ànd ak moom moom Macky Sall dafa waroon a wéeru ci euh, kuréel yu mel ne FRAPP France Dégage pour wax ne sama askankat lii la ñu wax waaye warul ànd ak ñi nga xamante ni ay way mbeefeer lañ maanaam ay colonisateur lañ ñi nga xamante ni li leen soxal du ñun suñu réew du suñu dund li leen soxal mooy seen dundum réew ak du sax seen dundum réew mais ñoom seen di ay lobby lobby fraternité yeeg lobby euh, nu mu tuddati waaye d'affaires yeeg mm-hmm. lobby euh, politique yi ngir ñoom ñuy gën di dund dund gu ñoŋ dund gu neex di gundaa daataka ndaataata lax askan yi ñoom nekk ci wañse loolu noonu Macky Sall moom moo ko war a bañal boppam bu te moo tax mu war a xam ne kat kuréel yu mel ne France Dégage daf leen war a jàppe ay partenaire te wax dëgg yàlla

gis seen naataanga boobu noonu ndaxte tey ji ñu ngi leen ko yombal ngir ngeen dara soppeekuwul dara soppeekuwul ndaxte dañ ciy def ay restriction euh, am na ñu ñuy jox mais am na ñoo xamante ni tamit duñ leen jox xanaa lii di permis de visite ndaxte kat kii di Guy Marius Sagna waxal na ko ba moom lettre bataaxal bi nga xam moom la jébal askan wi bañ ko jàppee ba léegi mën naa ne juróom-ñeent nit la gis juróom-ñaar la woon am na ñeneen ñaar ñu gis juróom-ñeent nit la gis te def na 71 jours juróom-ñaar fukki fan ak benn ci ci kaso camp bi muy kaso boo xamante ni ñañ fa yóbbu mooy ñi ñu àtte ba pare ba daan leen moom kenn àtte gu ko teg ci leen ñu yóbbu ko quartier de haute sécurité chambre huit fi nga xam ne fa yóbbu ñi nga xamante ni dañoo njort ne ay rëtëlkat lañ maanaam ay terroriste lañ maanaam Guy Marius Sagna dañ ko tëj ci kaso ci biir kaso te loolu di ak singéri koo xamante ni wax dëgg yàlla xel nu koo nangu ginnaaw bi loolu ah moom bañ koy jàpp mook juróom-ñetti nit lañ jàppandoo benn béréb lañ leen jàppee te li tax benn sabab bi la benn mébét bi mébét bi la woon ah ñi dem bàyyi juróom-ñett yi looloo lay wan ne kat ah ñoom ki leen soxaloon muy Guy Marius Sagna mhm. dañoo sànni seen bal jàppale ay yeneen jën yu sew waaye jën bu mag bi nga xam moom lañ bëggoon jàpp moom mooy euh, Guy Marius Sagna ñu bëtt mbaal bi bàyyi yeneen jën yi ñu dem may leen perte euh, tey Guy Marius loolu nag yaakaar naa ne Sénégal ci boppam war ñu ko seetaan ndaxte ah tey Guy Marius Sagna la ah démb Omar Blondin tey Diop la woon tey jii tey mënuñoo continuer ndaxte Guy Marius Sagna wax nga dëgg li tax ñi jàpp ne moom mooy jiite FRAPP ndaxte dëgg yàlla Ah, ñun ñii sax ñun ñii sax ñun mm-hmm. xam nañ ne wax dëgg yàlla moom fi mu egg mm-hmm. ci gëm-gëm bi fu mu egg ak li mu ko jaral wax dëgg yàlla ñu bëri yàq jàpp jàpp nañ ne Guy Marius Sagna amul liggéey jàpp nañ ne Guy Marius Sagna daal moom wëndanguy dem na mais Guy Marius loolu nañ ko wax ci am état Sénégal bi koy fay mm-hmm. ah, ki nga xamante ni moom mooy euh, kilifa Guy Marius Sagna ministre de la santé la moom Abdoulaye Diouf Sarr mi moom mooy euh, patron Guy Marius Sagna parce que Guy Marius Sagna euh, social la assistant social la jàngee fii ENDS S am fa diplôme am assistance la assistance sociale nag bu ñu ko waxee mooy kuy taxawal askan wi. Mhm. Ah, yaakaar naa ne assistance sociale yi ci Sénégal yëpp Guy Marius Sagna mooy seen xarit général. te kan yaakaar naa ne li ñu koy fay sax waroon nañ ko yokk ndaxte moom ni muy taxawal askan wi ni mu leen di xeexalee yaakaar naa ne kenn xeexaloo ko askan wi Guy Marius Sagna kenn mhm. na ak les animateurs polyvalents de la case de bénévolat. Mhm. ñiy jógee jour ba ma war a dem defi cours gi ne ma ah sawaay ñii de man munu ma leen a bàyyi yow gérer fe man ma gérer fii mm-hmm. sama classe laa toog mu woo ma ne ma sawaay arrêté nañ ma de maa ngi gendarmerie foire ak gars yi parce que mm-hmm. dañ dem fanaan bunt direction euh, nationale euh, de la case des tout petits fan lañ leen fekk ñoom ñëpp forom leen yóbbu gendarmerie foire mm-hmm. bañ ko bàyyi ay fan lañ ci tegaat mbir mi amul saafara mu àndaat ak ñoom dem fanaanan foofu ñu jàppati leen ñoom ñëpp ay jigéen ñoo xam ñu ngi yore seen doom am ay juróom-benni weer. Mhm. yóbbu leen ñoom ñëpp commissariat plateau waaye mhm. yaakaar naa ni xeex boobu mu àndoon ak ñoom di xeex. Mhm. moom moo tax mbir mi am saafara. Guy Marius Sagna ànd na ak les ex travailleurs du euh, PCC yi nga xamante ni kenn ki jarbaatu juge Samba Sall la ci boppam juge Samba Sall wax na ko sant Guy Marius Sagna bi mu koy déglu. ne ko ñooñu noonu nga àndaloon di xeex tax nga àndoon ak ñoom ci ñetti manifestation interdite bañ jàpp la euh, tëj la ci ñetti yoon. ñooñu noonu kenn ki sama jarbaat la waaye xeex boobu nga doon xeex ñoom moo tax mbir mi saafaraw mhm. loolu maa ngi la ci remercier ba pare nag ci geneen wàll gi Samba Sall xam nga moomul boppam ndax Samba Sall euh, Malick Sall Malick Sall Macky Sall donc noonu la mbir yi euh, mbir yi tëddee Samba Sall euh, doyen des juges Malick Sall mhm. ministre la justice Macky Sall moom mooy seen kilifa donc mbir yi noonu lay waddee dogal yi moom moo tax mu jël ko placé ko mandat de dépôt mhm. ñaareel bi yoon Guy Marius Sagna ànd na fi ak ñi nga xamante ni ñooy commerçant yi ànd ak ñoom di xeex ngir ay Auchan ak ay euh, ay euh, Carrefour jóge fii ndaxte kat jàpp na ne loolu dafay lor li nga xamante moom mooy suñu yaxandukat yi maanaam suñu suñu commerçant yi ñu ànd ci ñoom ci ay feeñ yu baree baree bare Guy Marius Sagna dem na ba Pikine armeelu Pikine yi dafa fees bañ koy waaj a tëj waa Pikine am ci ñu jóg di xeex ngir ñu yokk armeel yi Guy Marius Sagna dem ànd ak ñoom di xeex organiser foofu benn marche bañ naroon ñu arrêté finalement euh, ñu euh, policiers yi delloo seen xel moom moo tax jour boobu noonu amul benn arrestation Guy Marius Sagna dem na ba Taïba Ndiaye di ànd ak waa Taïba Ndiaye di xeex ndax lan seen suuf yoo xamante ni dañ ko bëgg a jaay ay doxandeem Guy Marius Sagna dem na ba toobeen gële nekk boori Tiwaawan di xeex ndaxte kat ICS euh, tooke jay génnee foofu noonu dafay lor askan wi yamuñu foofu noonu ñu bëgg a nangu suufu suufu askan wi mm-hmm. Guy Marius Sagna dem na ba ñaax Niafran di ànd di xeex ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, waa Niafran fële ci Casamance boori Kafountine ndaxte kat mi 2004 état Sénégal dafa jaayoon entreprise bii di euh, Carnegie mu jaay entreprise australienne benn permis d'exploration pour zircon bi nekk foofu noonu mm-hmm. mu ngi ko ko jaayoon un million de dollars dema dema dema dem ba tey ah Macky bi mu ñëwee jël euh, Carnegie jaay ko entreprise chinoise ba di fàtte na nu mu tuddati euh, jaay ko euh, permis d'exploitation ba tax bu ñu ko exploité dëkk boobu di Niafran ak Abéné ak dëkk yooyu yëpp dañuy dem ndaxte kat dune bi nga xam moom moo dox diggante géej gi ak lii di mangrove bi xam nga Casamance ci ñetti piliers la nekk mooy bolong yi mm-hmm. ak géej gi ak euh, kii rizières yi léegi bu ñu ko buñ ko dindee géej gi dafay songu li nga xamante ni moom mooy mangrove bi bu ko defee dund bi dafay affaissé wu bu ko defee village yooyu yëpp dañuy dañuy disparaître ñu mm-hmm. ànd ak ñoom di xeex ci xeex boobu boobu ba tey Guy Marius Sagna mm-hmm. ku ko xam xam ko ni ah première arrestation am fële la woon euh, en mille 2011 euh, dañ ko naroon a rey ndaxte waa PDS boobu ñoom ñoo nekk ci nguur gi ñuy xeex contre Euh, le le tripatouillage constitutionnel et euh, contre le troisième mandat ñu tëj ko fële ne ci ci ci Tamba Guy Marius Sagna ku ko xam xam ko taxawaayam ci loi parrainage bii nii Guy Marius Sagna ku ko xam xam pour wax la nag ne la nit ñi dañoo dem ma ne waa Guy Marius Sagna moom xanaa saa su ne dañ koy tëj. am na un jour dañuy waxtaan muy euh, kii ndaxte fi nga koy gis nii nitu neen la moo tax bu ñu naan dafa violent affaire yooyu déedéet moom la ñuy violenté mm. Guy Marius Sagna amul benn violence ci moom ndaxte nit la koo xamante ni reetaan ku ko xam ba ci yéen journalistes yi boo gisee li ngay njëkk gis moom mooy ay ay ay bëñam donc kooku wax dëgg yàlla mënuñu wax ne dafa dem naan dafay indi violence ndaxte loxoy keseem la yor ah li amoon moom mooy ne kat dañoo taxaw fële ci place de l'Obélisque àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ne Macky Sall yokk gii nga bëgg a yokk njëgu mbëj gi askan wi antanuñ ko te duñu ko nangu. Mm. dégguñu ñu ne ko kat may na ne ñaari fan boo ñu déggul ñun dana ñëw ba bunt njënd la maanaam pale ba yuuxu la ne kat ah Macky Sall dégluñu déglul askan wi antanuñ yokk njëgu mbëj gi te bañ fay dem loxo yi neen la ñuy demee euh, waaw kon na kenn mënut wax ne dafa dal ci kaw kenn. mu nekk un véritable combattant ci biir xeex boobu ngeen di xeex euh, euh, njëgu ko courant gi ndax tey FRAPP France dégage mu ngi ci lëkkaloo ak Ñoo waaw FRAPP bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo sos Ñoo Lank ndaxte boo xoolee ñun li ñu bëgg moom mooy fexe ba def un travail de conscientisation. ba am une masse critique frappe ci boppam du benn kuréel frappe ñaar fukki kuréel ak juróom-ñaar ñoom ñoo ànd doon euh, frappe mm-hmm. yaa ngi dégg ci kaw loolu si ñu teg suñu tànk mooy fexe ba yaatal ko moo tax kuréel yu mel ne aar lu nu bokk nga xamante ni moom yëngu ba tey ci wàllu aar suñu balloy mbindaare yi maanaam suñu ressources naturelles yi nga xamante ni Aliou Sall daf ko sàcc ak Aly Ngouille Ndiaye ak Macky Sall ànd kook euh, Franck Timis ak ay non lànk gi nga xamante ni ñoom gundaandaat ak noos gi ñu noosee Senelec moom moo tax mu dugg ci guuta ñu bëgg ko fayloo askan wi yooyu kuréel ay kuréel la yoo xamante ni dañ ci ànd ak yeneen kuréel yu mel ne ay Y'en yu mel ni ay SNP yu mel ne nitu dëgg des valeurs yu mel ni consomériste yi mm-hmm. ngir mën a yaatal ba nga xamante ni askan wi dinañ mën a am benn instrument boo xamante ni moom la ñuy taxaw jouer le rôle de contre pouvoir ba nga xamante ni bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi di euh, non sa ka euh, gundaandaataka ndaataatallax bëgg nañ leen a euh, gax imposer leen loo xam dafay dis ci ñoom bu ko defee ñu am gànnaay loo xam moom la ñuy xeexee Guy Marius Sagna euh, nekk symbole suñu génération nekk symbole résistance bi nekk symbole euh, li nga xamante mooy bañ gi nga xamante ne dañ koy bañ te yaakaar naa ne mën nañoo rey nit mais mënuñoo rey symbole mën nañoo tëj nit waaye mënuñoo tëj symbole te symbole boobu yaakaar naa ne incarné na ko ba pare loolu la yàlla def gannaaw bi nga xamante moom da ci xar tànk tubayam ba àgg ci fi mu ci yaakaar naa ne ku am ndaw lu mel noonu sa réew li nga war a def moom mooy di ko déglu parce que ñi ngay jël naan say conseil lañ. Mm-hmm. di leen fay alalu askan wi amaluñ ne benn njëriñ ndax tey réew mi tey la gën a euh, galfaañ ñi ngay déglu du ñi nga xam toujours dañu lay wax li la neex di la raay ñi ngay déglu mooy ñi nga xamante ni donte li ñuy wax sax ni ñu koy waxee ñagas na. Mm-hmm. déglul solos wax ji bu ko defee nga jëfe ko yaakaar naa ne mooy tax dundu askan wi gën a ñoŋ. kon euh, Guy Marius Sagna mën nañu jàpp ni daal euh, intérêt yi Sénégal moo ko ñor waaye Aminata Mbengue Ndiaye ci mairie de Dakar. Mhm. moom dafay proposer ñu koy ñuy nommer euh, maire de maire bu Dakar yow loolu ban gis-gis nga ci am. mooy li ma lay wax rek gis nga way politique yi Sénégal il faut ñu nekk nit te xam ne ñoom amaana sénégalais yi dañoo toog di leen seetaan rek mais ñoom ñoo leen raw fuufu fuufu te bu ñu yëkkatee rek sénégalais yi xam nañ fan la ñuy daaneelee ndaxte Aminata Mbengue Ndiaye tey. ah mu mën na wax loolu ndaxte li nga xam mooy au conseil des collectivités territoriales ban njëriñ la amal askan bi ban njëriñ na amal askan bi te ci budget deux mille vingt bi rek dinañu lekkal presque six mille six milliards huit cent huit cent millions te bañ ko sosee ba tey at mu jot ñu lekkal lu ëpp lu jege sept milliards ban njëriñ la amal askan bi au conseil des collectivités territoriales bu ñu ko fi dindi woon tey ndax askan wi dinañ yëg ne euh, jóge na fi déedéet parce que askan wi yëgu ne sax mu ngi fi ndaxte amul benn jeexital ci seen dund kan moo ko yoroon Ousmane Tanor Dieng Ousmane Tanor Dieng ak euh, Aminata Mbengue Ndiaye lan leen moo leen boole ñoom ñoo bokk langue politique donc ñoom dañu ànd ak Macky sàll farandoog moom complot réew mi moom moo tax Macky Sall cëral leen moo tax nag wax dëgg yàlla loolu lu ñu bett bu jógee ci moom waaye loolu yaakaar naa ne ni ñu xeexee woon parrainage bi mm-hmm. dinañ ci xar suñu tànk tubay xeex ci ba nga xamante ni askan wi kenn du leen woom mi li nga xamante ni moom mooy seen àq ak seen yelleef te àq ak yelleef bi ci jiitu moom mooy ki leen di jiite joom ñoo koy sàqal sa sàmmal seen bopp ndaxte kat démocratie ak liberté yi nga xamante ni ñun moom lañu am nekkul loo xam ci asamaan si la waddee ay doomu aadama suñu ay démb ñoo taxawoon di xeex xar seen tànk tubay ba tax tey ñuy dund ci démocratie bi te ñun duñ nangoo mujjee puso bi mu réeree ci ñun loolu bu ko naree def dinañu gisaat ñu taxawaat seen kanam xeex ànd ko askan wi ba nga xamante ni danañ delloo mbir yi fa mu war a tege mooy lan mooy muy mairie Dakar di ba beneen mairie ki koy jiite askan wi moom moo koy falal boppam. ndax jàppoon ni état bu senegal li muy ñàkk euh, mairie de Dakar élection bu jot saa saa mu ñàkk ko oh. ndax loolu taxul nii moo tax. ñu bokkoon ngir mu dellu seen i loxo xam nga pexe yi ñu euh, ngal yi ñu lalal euh, Khalifa Sall mooy pièces yi ñu ko lalal ak satañal yi ñu ko satañal ak singali yi ñu ko singali yëpp yëpp loolu la ñun du ay diw Khalifa Sall keneen moom moo ñu intéressé ni ñu intéressé moom mooy yoon. moom mooy yoon li nga xam ne moom la mbir yi demee naka demee ndaxte wax dëgg yàlla bu fekkonte ne moom ki ko jiitu ni mu def Khalifa Sall noon la ko def amaana fi mu toog du fi du fi toog ndaxte yaakaar naa ne 2008 bi mu quitté assemblée. Euh, ñëpp njortoon nañ ne Ablaye Wade dina ko tëj ba tax moom mu daw toog fële ne ci Serigne euh, Serigne euh, kii lu mu tuddati waaye Serigne Baara. di fa jooy jooy yu metti ah di di ñaan ngir mu dox digganteem Abdoulaye Wade mu bañ koo tëj yaakaar naa ne euh, buñ ko defoon noonu tey fi mu toog ni di fi toog may wax leen rek nag mag Sall il faut que mu delloo si xelam te bañ a topp ñi nga xamante ni seen biir ak seen di ay Euh, intérêt moom moo tax ñu topp di ko wax loo xamante ni mu toog ci nguur gi wéyal moom moo moom mooy seen intérêt Macky Sall réew mi dañoo xeex a xeex xeex ba sonn yaakaar naa ne tey bu ñu xoolee ci rétroviseur bi xool juróom-ñetti at ci ginnaaw ñun wax dëgg yàlla dañoo am mbetteel ndaxte kat di tax ñu am mbetteel mooy foogoon nañ ne xeex bi ñu xeex ak li ñu daj ak ñi ci ñàkk seen bakkan ak ñu ci gaañu ak suñu liggéey yi yàqu diggante 2011 ak 2008 ngir rek réew mi tegawaat ci yoon mm-hmm. bu ñu toogaatee juróom-ñetti at duñ toogaat fii nii mel noonu wala ñu taxaw ci mbedd yi di xeex xeex yu mel noonu mm-hmm. temps bi jeex na waaye benn question laa lay laaj ndax yéen am ngeen yeneen plan yoo xam ne yéen a koy def ngir libérer Guy Marius Sagna yoo xam ne waxu leen ko xeex bi lépp dañ koo dugal ci li nga xamante ni moom mooy euh, non lank nga xamante ni dafa ëmb d'accord FRAPP mais tamit yeneen kuréel yu mel ne Y'en a marre SNP euh, nitu dëgg des euh, ak yenn kuréelu politique ak yenn syndicats association consumériste yi ndaxte mm. kat xeex bi ñaari mébét rek lañu am benn bi mooy ñi teggi loxo Guy Marius beneen bi mooy ñu nee na lii di euh, dogal bi euh, càmm gi jël ñeel yokk njëgu mbëj gi te loolu dañ koy wéyal moom moo tax Euh, démb amoon nañu am ndaje ak taskati xibaar yi ngir siiwal ab ab ngara maanaam ab document mu tuddee ko mémorandum boo xamante ni ci lañu tënk lay yi nga xamante ni moom moo tax ñun ñuy jàpp ne euh, lii di yokk njëgu mbëj gi tegawul fenn te loolu nguur gi da ci war a dellu ginnaaw beneen bi gisoon nga yeneen feeñu yoo xamante ni organisé woon nañ ko fii tey itam ak ay distribution de flyers dañuy gën a euh, biral xeex bi dañ ko gën a taral ndaxte wax dëgg yàlla ah bu ñu poussé nag ba ñu sës wax dëgg yàlla ñun Guy Marius dinañ gisee ak moom dinañ toog ak moom ñaare yi mën a am moom mu génn ñu toog waxtaan waxtaanee ci bitti wala ñun ñu dugg dem waxtaan ak moom waxtaan ak moom ci biir bu fekkente ne nag kii li Macky sàll moom kat li nga xam moom la bëgg a jox waa àdduna mooy euh, nguur goo xamante dafay tëj ay ndawam nguur goo xamante ni dafay dafay jaay doole ay ndawam daf leen di euh, daf leen di faagaagal ak di leen rey ah nañ ci dem ñun lu mu ko jaral dinañ ko jaral ndaxte réew mi kat comme ni ma la ko waxee ay nit ñoo xeex. ba ñu egg ci démocratie ak liberté yi ñu am. ñun nag ñu nangoo mujjee puso mu réeree ci ñun. lu mu ko jaral dinañu ko jaral suñu problème du makki sàll du ma demba suñu problème Sénégal la ñu France Sénégal lañ bëgg bañuñu Macky sàll France la ñu bëgg euh, Sénégal Sénégal la ñu bëgg ci kaw loolu moo tax nag xeex bi moom dañ koy wéyal. agsi nañ ci cappaandawu euh, émission bi euh, lan ngay tàggatoo yi. li may tàggatoo mooy di wax Macky Sall bàyyil Guy Marius Sagna mu ñibbi bàyyil Guy Marius Sagna mu ñibbi. bu fekkante ne tegawul sa coobare bu dee waa France ñoom ñoo la ko imposé jiitalal li nga xamante ni moom mooy njariñu Sénégal ngir ëllëg nga mën a am way ndaxte kat ah fi nga toll nii ñun amuñu benn way boo xamante ni askan bi mën nañ la kaa wayal ndaxte wax dëgg yàlla ba nga ñëwee la nga ñu digoon lépp danga nga kaa jël teg ko fële na le rupture ba nga ñu waxoon tey la waa la gën a aay ñeel li nga xamante mooy yorin wu bon ñeel li nga xamante ni moom mooy euh, corruption ñeel li nga xamante moom mooy détournement de biens publics yaakaar naa rapport yaa ngi fii nii rapportu Cour des comptes et cetera ñi mu jàpp ñëpp ñëpp ñuy xaar ci yow ngir nga ne ñooñu liggéey ñoon def seen liggéey nga naan nañ def ay commission ak ay affaire yu ñàkk fayda yooyu moom moo tax nag ñu ne kat Macky Sall delloo si sa xel bàyyil Guy Marius Sagna mu ñibbi bàyyil Guy Marius Sagna mu ñibbi te nga déglu li nga xamante ñun ñun moom lañ lay wax mm-hmm. liñ lay wax waxuñu la ko pour mu naqari la waxuñu la ko pour mu neex la dañ la koy wax ngir lu neex Sénégal dañ la koy wax ngir luy defal euh, Sénégal moo tax bul topp ñi nga xamante ni ñoom ñoo la wër nga xamante ni seen teraanga yaakaar na ni mu ngi wekku ci di la jay ak di la wax ngay def noo xamante ni di bàkkook yooyu noonu Macky Sall xalaatal ba ñuy taxaw euh, place de l'Obélisque ak yow xalaatal ba ñuy taxaw place de l'indépendance jàkkaarloo ak policiers yi nga bàyyi Guy Marius Sagna mu ñibbi mbokki internautes yi euh, ñu ngi leen di jaajëfal ngeen nekkoon ci seen émission entretien avec euh, ñu ko waxee comme ni ñu ko waxee woon ci euh, ndorteel yi ñu doon dalal Daouda Gueye bokk ci mouvement Frapp France dégage di xeex ci wàllum yokkum courant bi ak yeneen ñu demee noonu ak libération bu Guy Sagna ñu leen di jox dig daje ci beneen émission ci entretien avec ci Sénégal 7.